mel eh, nii en direct fii nii si jumaa ji minuit vingt minutes ñu déglu déclaration bi si jumaa ji si ndigal si Ahmadou Mountakha Mbacké xalifa général des mourides en direct dafa wax ne ñiy yëngu ci dëkk bi nañu dellu ci kër yi ngir war maale ko sëriñ bi sëriñ bi ci kër yi ngir war maale ko sëriñ bi ndigal laa ngoog wasalaam mu nekk kàddu yi Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalifa général kullu murid yal na fi yàgg te yëngu-yëngu yi nga xam si ni am na ay benn benn ñu koy def fii nii si dëkk bu sell bi man maa ngi ñëw jugee ancien garage woon sur ab rencontre waaye gis naa ñu bari di ko def moom la wax ni képp koo xam si yaa ngi doon am ay yëngu di ko def si dëkk bu sell bi euh, dellu si kër yi. Euh, mu mel euh, nii. si jumaa ji. minuit minuit vingt minutes ñu déglu déclaration bi si jumaa yi si ndigal si Ahmadou Mountakha Mbacké xalifa général des mourides en direct nañuy yëngu ci dëkk bi ci kër yi ngir wormaale ko ko sëriñ bi hmm. sëriñ bi dafa wax ne ñiy yëngu ci dëkk bi hmm. nañu dellu ci kër ngir war maale ko sëriñ bi hmm. ndigal laa ngoog hmm. wasalaam mu nekk uh, kàddu yi Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalifa général kullu murid uh, yàlla na fi yàgg te yëngu-yëngu yi nga xam si ni am na ay benn benn ñu koy def fii nii si dëkk bu sell bi man maa ngi nuyu jugee ancien garage rek ñu ngi woon si ab rencontre waaye gis naa ñu bari di ko def moom la wax ni képp koo xam si am ay yëngu-yëngu di ko def si dëkk bu sell bi. nga bàyyi ko dellu si kër yi.